asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mbokki jullit mbokki taalibe yi rawatina ñu ñu seetaan ñoo ngi lay nuyu baax baax di leen dokkeel di leen jaajëfal baax sëñ Cheikh ñoo ngi lay nuyu baax baax di la jaajëfal di ne ñoom ñu seetaan rawatina ci bis bi tedd bi ñu baaxoo ànd ak yéen ñu ko baaxoo defee rek ci mbaram dara xudus éducation culture dafa mel ni moom ne ñu waajale bis ba mën a doon rek noonu lañu koy waajal rawatina bis bii nga xam ne nag Cheikh Mouhamadou Mountakha da ko fonk lool ca yaakaar naa ñëpp dégg lam ca wax muy ko fonk ndax dina àgg bu fekkoonte ne duy tey nit ñi ak xat-xat kon da koy def ay bis gu nekk loolu nag kon la mbooloo mi xam ni kon lool la ko ñor la moo tax bañ joojoo ndigal la ca ajjuma ajjuma jële diirub ajjuma jee jàll ba ba bisub tey ci wàccaay wi lañ nekk ci njàngam alxuraan waaye njàngam xasida ak salaatu nabi ak askar ba sax ay waxtaan ngir lépp ngir soññi bis bi ah, ba ñëwee ci bis bi nag ci bis bi ñu ñëw ci mbaar mi nag liñ doon jëmmal liñ doon def ci ci ci ci ci koñ yi ñu jëmmal ko fii nag mooy njàngam alxuraan mi ñu gën koo wéyal waye njangam xassade mi ñu gën ko wéyal ci durus ak kurel yi yaang koy dégg waye salaatu ala bi ak loway man ci lu baax ñu diko def ngir fas dundal bis bi nga xam ne Cheikh Mountakha moo moko moo ko dama dama nan dama naan section Touba bis bi nim ko fonké dama nan fonké ko ben bis ngir lan fim tollu borom bis bi ba noppi nag Cheikh muntaha section Touba bi di wilaya mu bayi leen xel lol ba di leen jox ay cër yo xamanteni bi dañu xam ne ak la tax mo tax nag cër boobu mu leen jox nu tollu lañ ko jappé way la nu ko raw ngir fas ko jëfé ngir di ci dak ak bëggum kon daal dafa mel ni ni ñoo bis yu am solo yi rek noonu lañ ko waajalee wala sax nu ko raw am nañ am nañ mbooloo moo xam te ne bii dañuy dañuy yor saqub xasida ku ñu jox ak xasida gu nekk da koy jàng boo boo ko jàngee ba noppi jox leen ko bu dee alxuraan it képp ku ñu jox jukkib alxuraan dañ la koy jox ba nga jàng ko ba noppi nga xam ne maanaam am na ñuy saytu ba xam ndax yow li ñu jox jàng wala jàngoo ko nga bu ñu la ko joxee nga teg ko ci suuf rek ñoom dañ koy jël jox ko keneen kon am nañ jàpp ne képp xasida gu ñu joxee rek ñi ngi ko joxam ñi ngi koy jàng ca ñi ngi koy sellal naa gën a santal rek bu baax a baax Cheikh Modou Mountakha waaye gën koo ñaanalaat mu gën fa yàgg ci gën a wér lool waaye nag di gën a santaat mbooloo mi nga xam ne ñu ko àndal nag ndax xam nga section Touba ñoo koy ñoo ko ànd waaye nag am ñetti kuréel yu ñu leen booleel mooy lu lu mel ni Safatul Amaan Kéré Mbay ak ñaari gujju Ndakaaru ñoom ñëpp seen i kuréel nag ak yeneen kuréel sax ñoom ñëpp ñu ànd ak euh, section Touba kon dañu maa lu sant leen gërëm leen waaye ñaan nag niñ ko tàmbalee ñu àggale ko noonu Cheikh Modou Mountakha li ñu ci bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal ca defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di siyaare ba di jiital ci siyaare bi ak nuyoo ba sëriñ Muntaxa Mbàkke di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mu yàggal ko fi lool ba naal bi mu naal maam rek ñu yàgg ko ànd ak moom ci gën gaa rafetu àndin mooy ñetteel bi yoon sëriñ bi woote ko fii ci Touba ci njàngum xasida ak alxuraan tey nag mu def ko ñaari ajuma taxawaayu Chifa Soudour yi ci kuréel gi sëriñ bi woote ak lëkkale nit lañ ñu ci mën waaw xanaa loolu de di ko rafetlu rek di ko rafetlu lu baax di ci am mbégte bu baax tamit ak euh, kontaante bu wér a wér a wér ndax euh, sëriñ bi ñu woo ci liggéeyam sëriñ Tuubaa moom loolu day lu kawe su ñun te muy lu lu màgg su ñun tamit xanaa di euh, santaat yàlla bu baax rek di sant sëriñ Tuubaa mi nga xamante ne lépp moom la ci taxawaayam ak liggéey bu rëy bi mu liggéey ba tey jii sëñ Muntaxa di wooteel bis bu mel nii bu màggee nii ñu koy màggale xasida yi nga xam ne dañ fiy jàngee ci alxuraan ak xasida kenn xamul nu mu euh, dañ ciy kontaan bu wér euh, ñun waa Sifa Sudóori si suñu njiit suñu jëwriñ maam góor euh, lay wax dëgg yàlla am nañ ci kontaan bu wér a wér a ndax bi ndigal li jógee ba léegi moom mi jógul ci di xar tànk tubayam pour niñ ko mën a taxawale màggale bis bi jëmmal ko bu baax a baax baax ndax amuñu lu ju Serigne Touba moom rek la ñu yaakaar moom rek la ñu kon bés bii moom dañu ñaan suñu borom suñ Muntaxa mi nga xam ne moom moom yàgg na koo teewe moo koy yàgg woote ñu yàgg ko ànd ak moom ci gën gaa rafetu àndin Chifaa'u Suduur nag dafa nekk ne euh, daara boo xam ne maam bi mu sosoo ak léegi yàggagul lool waaw yàggagul lool waaye teewul wax dëgg yàlla ñoom yeneen yeneen kuréel yi tamit bàyyi nu mukk ñu des ginnaaw ñoo ñuy saytu boobu ba léegi tamit di ñu toppatoo di ñu nemmeeku ci ba xam ci lañ la nekk ndax liggéey Sëriñ Tuubaa moom dafa yaatu waaye ñoo ngi ñoo ngi bàyyi xel bu baax daal ñoo ngi bàyyi xel bu baax te ñun leen tàllal suñu loxo bu baax ci euh, bëgg di ànd ak ñoom ci liggéey yu rëy yi. waaw kàddu di mujj yi moom dañuy santaat Serigne Touba rek lépp dañ koy jël di ko dellawaat Serigne bi ndax euh, lu lii nii dafa dafa dafa kawe su dafa màgg suñu ñun day nekk loo xam ne yombul fii jamono ji toll nii nga xam ne xat na lool te euh, ñu nekk ay ndaw mën na mën na suñu xel mën a nekk ci leneen waaye sëriñ bi xëccal ñu boppam. boo leen ci ak njabootam ba nga xamante ni si sunu yëngutu ak sunu dal lépp ci liggéey Serigne Touba bi la kon loolu dañ ci sant yàlla bu baax. waaw jërëjëf sëñ Cheikh ma ne sëñ moom ngir yéene ndokkital bi lu baax ndax lu baax moom dafa doon loo xam ne moom sëñ Mountakha daf ci ràññeeku ci ne moom moom dëgg lépp lu mu ciy def mbokk bokk ak mbokki taalibe yi moo tax it daanaka ñu gis euh, muy faral taxawal bi si mel nii lépp ngir yéen ñu aw yiw rek muy gisi ñaan ak sikkar ak jàngal xoolaan ak jàngi xasida euh, lu ko def at yi yëpp nag mu gis ne xëy na nag jamono ji li lu dem muy gën di xat moo tax it mu amaloon ko ci àjjuma yi ngir euh, tallal ko ngir xëy na mu gën a woyof ci mbokk yi waaye lépp it ngir ñu ne ci lu baax kon képp ku yëngatu ci lu baax rawat nañu yëngatu ci alxuraan ak xasida danga caa war a taxaw taxawaay mat bu am solo Euh, daara bi daal xuld nag ndaka jekk at mu jot da ko daa taxawee euh, di ko taxawal fii jumaa ji teewer barab sëñ Mourou Moussa waye gis na ni aljuma yi xeyna khat khat yi taxna ñu ñu ñu ne ko jëm and ak ñeneen ñi rek euh jëm ñu and ko ci aljuma bi ni ak euh, mbolom wilaya ak bich euh, rek guddi Dakar yeeg guri kuréel yi ànd ak yëpp ci mbar mi jëmmal ko ñu koy jëmmal ndax lepp lu baax mo foko defé rek te yalla tax rek inshallah suñu doon ci fay na mu gëna a mo tax ñew andon ko ko euh, wa kuréel yi nga xam ñoo ñoo and fi ci mbaarum dalax doos di ko yëngal di ko di fi yëngutu ñu ñëw ànd kook ñom rek ci ni mu gëna a wax dëgg yàlla di sant bu baax baax ci taxaw bi taxaw gi ak yaatal gi ak li jëmmal di ñu defal ci bisbi ci sant bu baax a euh, ndax da kuréel yi dafa am kuréel goo xam ne moo leen lëkkale ba bu lu mel nii amee rek dañ leen di woo wala ñoom ñooy jël seen matukaay bopp ginnaaw bu ñu déggee ndigal li. waaw bu dee kuréelu xasida yi moom dafa am kuréel gu mag gu ñuy wooye Mawahibou fi euh, mooy kuréel yi nga xam ne moo ëmb daanaka jàngkati kuréel xasida yëpp ci biir euh, dëkk bi ak ci lu génn dëkk bi nga xam ne lu mat juróom benn fukk kuréel ak nangam boot nañ ci. Euh, yu mel nii bu ñëwee moom ndigal li bu nga ko joxee sëñ am sa sëñ am sa ndax jëwriñ ca doomi sëñ am sa mooy bokk na jëwriñ daara jooje ak sëñ Cheikh Dieng ñooñu dañuy ñoo koy jot li ñu jokkoo ci ak kuréel yëpp yi nga xam ne ñoo ñoo ñu aju ci Mawahibou Nafih boobu euh, wax leen nañ cey jànge ak nan ko gën a bëggee bu ko defee ñu taxaw ca lu mel noonu bu ko defee yeneen yeneen mbooloo it ku mën na def taxaw fa nga mën a taxaw it nga taxawee moom bu xasee jub moom amatul xaare ko ci ku nekk yaa xool na am jàppandee ci yow rek nga doxe ko noonu waaye terewut dana am lu mbooloo yu lëkkaloo ngir boole ko ngir mu gën a muccal ayib terewut loola danañ ko def salaamaaleykum warahmatullahi taala wa barakaatu leen nuyu baax yéen kenn ku ne turam ak santam Cheikh Mbacke Diouf la dëkk Njaareem bokk kuréelu Njaareem bokk section Diourbel ñoo fi tey nag ngir teewal waa Njaareem gépp ci turu liggéey bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha da ko woote ñu koy ñaanal suñ borom mu yàgg fit lool te ba liggéey bii nga xam ne da koy liggéeyal Sëñ Touba mu def ci ba def lu kayo njortam dañu ànd koog moom barke borom Touba ñun nag njaare njaaram lañ jógee ànd ak waa njaaram gépp bokk ci waa wilaya Jurbel ngir teewal leen fi ngir li nga xam ne la Cheikh man mën taxa ci bis bi mën koo def def lu gën a rafet ci barkeb Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne la liggéeyal. kuréel gi mooy mooy mooy wilaya wilaya nag am na kuréel national kuréel national nag daa am ay ay ay dëkk yu ko composé mel ne Njaareem ak Touba ak Taïf ak Ndakaaru ak Mbour yu xeet yooyu kenn ku ne am na fa ay membres yoo xam ne ñoo bokk kuréel waaye kenn ku ne am nga suuf kuréel bopp boo xam ne nii si xew-xew yi ma ne amee dañ lay wax leen lañ bëgg ca bis ba ak nañ ko bëggee ñoo defee noonu. su noppee nag ñi nga xam ne ñoo ñoo seq dëkk yëpp dañuy dajalawaat ngir ne jàng si kuréel gi waaye noonu noonu noonu la ñu lëkkalee noonu la ñu liggéey bi ndax wilaaya moom ku ko xam-xam ne ay pàcc-pàcc la.